mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ñun ci rajo Rewmi FM comme ni koy defee rek dimanche bu nekk tey ñu am ci gan euh, biir caw nekk maire bu commune bu Réfane moom lañu ñu war a dalal tey ci émission gox bi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw maa ngi lay fay Mbemba di nuyu. Sénégalais yi ñuy déglu yëpp ci émission gox bi sur Rewmi FM di leen ñaanal jàmm di ñaan yàlla def ci réew mi jàmm euh, di nuyu aussi kilifay diine yi ñuy déglu di nuyu son excellence le président de la république Macky Sall uh-huh. ak euh, l'ensemble de son gouvernement voilà maa ngi ñu tàmbalee li nga xam ni moom moo jëm ci émission bi ak lakk-lakk bi nga xam ni tey euh, moom moo fi am ci biir semaine bi mooy ci diwaanu marché Sandaga euh, plus précisément commune bu Plateau salle de vente la ko ñëpp xamee mel ni euh, li ni mel bàyyiwul dara ci li nga xam ni moom moo jëm ci ay yàqu-yàqu ban commentaire nga ci njëkk a sànni. commentaire bi def mooy xëy na. wax dëgg yàlla mettitlu ko mettitlu ko lool sax masawu ñi nga xam ne moom ñoom la ndox mi daal ci ci seen kaw te ñëpp di suñu njaboot ndax salle de vente moom ku ko xam-xam ne ay bawol boo rek a fa nekk di fa daan seen doole tappalewuñu jëluñu yëfu jàmbur eh, am jom lool am fula lool lépp di daw guddeeg bëccëg suba ngoon ngir du euh, ñu terale seen njaboot du ñu terale seen askan euh, lu metti lii bu ñëwee dal seen kaw wax yàlla du ñu mën lu dul naqarlu ko masawu leen waaye aussi sant ci yàlla parce que tamit dogalu yàlla la loolu jullit di jariñ gëm yàlla en fait li muy jariñ mooy ba yàlla tegee nattu nga nangu ko Euh, nangu borom bi ne ko man sab jaam rek laa li nga ma teg yaa ma ko sañ teg nangu naa ko euh, dem naa fa seeti leen wax dëgg yàlla ci état d'esprit boobu la ñu nekk euh, ñoo ngay muñ xam ne léegi ci dogalu suñu borom la xanaa nu ñaanal leen yàlla rek yàlla na yóbbu comme ni ñu koy waxee seenu ay ensuite yàlla na yàlla def lépp loo xam ne jéemaat nañu ko pour commencer waa seen liggéey yàlla dugal ca loxoom barkeelal ko sottal ko yàlla wutaleen leneen lu gën a bëri gën a barkeel gën a lew te ñu muurloo ko waaw lu am solo la mais monsieur le maire itam euh, li nga xam ni moom moo jëm ci modernisation marché itam mënuñu ko bañ a wax ndax euh, projet la yi nga xam ni état sumb na ko mais ba tey kenn xamul fu mu toll waaw en fait euh, projet la boo xam ne mu ngi avancé ah man j'avoue que quelquefois maa ngi ci am quelques informations mais je sais que projet la boo xam ne état daf ko daf ko yitteel yitteel le président de la République république te booy mu waxantee dëgg nag mooy solution pour que yu demee nii di am xam nga daanaka chaque année ngay gis ay marché yu lakk muy Dakar muy Kaolack muy feneen ak feneen mhm. euh, lakk boobu aussi xëy na bu même mënul ñàkk ni muy garaawee nii bu fekkoon dañu nekk ci ay marché yu moderne xëy na du du grave noonu mhm. mën na sax bañ am bu boobaa je pense que président de la république euh, lu ko yitteel la te dina def ni mu ko ni mu ko waxee seulement nag projet yoo xam ne dafa am benn envergure yi parce que marché boo dugg Sénégal rek da ngay jax xam ne bii dañ ko war a moderniser uh-huh. kon damay jàpp ne marché Sénégal yëpp lañu war a moderniser donc day da projet boo xam ne il faut mu am envergure boo xam ne day laaj ay koppar mais aussi day laaj concertation yu yaatu entre les différents acteurs jaaykat yi mairie yi état central et cetera et cetera ba nga xam ne xëy na euh, bu defar ya yeggee mu mucc ayib nanu ñaan yàlla rek yàlla sottal projet bi ba nga xam ne vraiment ñu moderniser marché yi nga xam ne ku fa nekkati di daan sa doole sa alal nekk ci sécurité. doo yow si sa wàll bopp maire nga commune bu Réfane ndax am nga projet euh, modernisation li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi. waaw am nañ ci projet euh, xëy na ñun chance bi ñu am mooy xëy na euh, marché yu mag yi ni ñu mel nga xam ne vraiment désordre bi xes na bari xes na tollu benn niveau boo xam ne euh, pour nga remettre de l'ordre day jafe xëy na ñun suñu marché yi tolloogul foofu moo tax xëy na euh, mooy ci lay gën a jàppandee ci ñun Euh, moo tax déjà au niveau du marché de Réfane vraiment liñ fa njëkk a tabax ñun bu ñu ñëwee dañu fexe ba mu nekk lu moderne te noonu lañ bëgg a continuer di ko def par phase nga xam ne luñ ciy def uh-huh. mu nekk lu moderne loo xam ne yàlla mën na dogal ay jéye du fa du fa du fa am uh-huh. waaw lañ fa jot a tabax ni boo fa demee ah leer ne lii vraiment c'est c'est très moderne et c'est accessible uh-huh. yàlla tere bu fa jéye amoon tey pour oto accéder wala sapeur accéder fa du doon lu jafe du doon lu jafe mais est-ce que waru ta doon benn mbëbët bi nga xam ni maire yu bari tey war nañ mën a am dynamique boobu waaw je pense que loolu sax mooy mooy nekk la très bonne solution parce que bu fekkee état central moom rek dafa war a jóg pour pour pour moderniser mën na mën na mën na bëri jafe-jafe peut-être xëy na am na yenn marché yu mag a mag yoo xam ne xëy na état central mën na ci dugal loxo mais vraiment communes yëpp je pense que état central mënoon na accompagner les communes parce que tamit communes yi amuñu doole quand il faut l'avouer uh-huh. ah, accompagner leen kenn ku nekk marché yi nga xam ne moo nekk dans son territoire mu jëm ko moderniser je pense que doon dana gaawee peut-être sous forme de budget de de subvention de de de de de fonds uh-huh. ah de de sous forme prix bi yu demee noonu pour que vraiment chaque au niveau de chaque commune ñu xool vraiment des marché adaptés ñu méngoo ak dëkk ba ñu méngoo ak jamono nga xam ne bu boobaa xëy na yàlla dina def mu gaaw parce que bu état central bëggee embrasser Sénégal yëpp uh-huh. dana yéex mais bu fekkee commune bu nekk ci ndimbalu état mu ngi toppatoo ay marché am uh-huh. mën na gën a gaaw te xëy na yéen marché yu mag a mag yi nag nga xam ne xëy na nag day laaj xaay bu bare bari ak yenn expertise yu doy waar yoo xam ne suñu communes yi amuñu ko bu boobaa état central jël ko en charge uh-huh. mbokk yi ñuy dalal ki nga xam ne moom moo di docteur Djibril taw muy maire bu commune bu refan monsieur le maire yow lañ tabaat ci bopp commune bi euh, nga war a defaat juróomi at Euh, tey li nga xam ni nag moom moo jëm ci commune boobu noonu lan nga jàppoon nii moo gënoon déterminant ci élection yi tey ba ñu falaat la. Euh, li ma jàpp ne moo ci gënoon déterminant mooy bilan ak euh, proximité ak askan wi ñu xam ne ci ñoom nga bokk waaye aussi ñu xam ne ay la yéen biñ la falee li nga fi def teg nañ ci bët teg nañ ci loxo. te doy na leen man yaakaar naa loolu moo ci gënoon déterminant euh, te bu ñu falee nit ay mbokkam daje ne ko jiituñu je pense que à maanaam bu ñu demee poppal googu jeex bu amut mën a yëkkati baaramam ne leen lii maa fi def maa ko fi def ak lii ak lii ak lii ak lii bu leen doyee ngeen falaat ma bu leen doyut ngeen falaat keneen tant que yegguñu foofu Euh, li ñuy wax euh, décentralisation ak euh, administration locale ah. territoriale au niveau des communes du am sens il faut que lépp loo xam ne day doon ak pal ñu teg ko ci jëf ci résultat uh-huh. ci bilan yoo xam ne day doon ay avancé ay njariñ yoo xam ne dafa nekk ci suñu dëkk yi ci jamono joojee élection yi itam euh, ba ñu la tabbee tey nga gagné li nga xam ne nag moom moo jëm ci commune bi euh, lan nga jàpp ni tey moom moo war a nekk sa projet bu njëkk ginnaaw bañ la xalaatee ci commune bi. en fait projet bi projet en fait continuer. ma dama jàpp ne euh, comme ni ma ko waxee. mais ci biir continuité boobu mm, am na ñaari secteurs yoo xam ne quand même c'est ñu ngi ci doon def. mais dama bëgg ñu gën ci def encore. mooy ban ak ban. mooy mbirum wér-gu-yaram ak mbirum éducation jàng ak njàngale. Euh, ndax da ñaari mayo yoo xam ne dafa am solo ci askan. askan bu ko amul rek daanaka amoo dara euh, bëgg naa daal njàng njàngale mi ci anam yëpp nag muy daara yi muy école al azhar yi muy école française yi. fu ci doomu reefan jóg bëgg faa jàngi rek bu demee fekk fa condition moo mën a jàngee ba xam-xam ba muy sàkku yàlla defal ko ko euh, bëgg naa aussi ci wér-gu-yaram fu doomu reefaan jóge rek bu yëgee sutante ci yaramam mu mën a dox ndànk ci lu soriwut mu dem dugg fuñ ko mën a fajee ñaar yooyu daal vraiment bëgg naa ñu gën ci redoubler d'effort terewul nag ñu continuer ci électrification rurale bi euh, yàlla dogal na dëkk yëpp am nañu courant mais sancaan yi uh-huh. ak yenn dëkk yi nga xam ne na fa courant bi dugg xëy na des na uh-huh. il yooyu aussi ñu ñu wutal leen ay pexe gën a yokk gën a yokk réseau bi ay extension yoo xam ne il faut ñu yokk ko euh, tëli bi nga xam ne moo jógee Kawa dem Refane moom boobu yaakaar na yàlla mu ngi ciy def sutura ñu ngi ci liggéey yi mu ngi avancé bu baax a baax euh, yaakaar naa daal xëy na fekk weer jàpp ñaari weer liggéey bi mën na sax pare donc ñoo ngi koy goudronné loolu ñu sant ci yàlla bu baax mais sant ci aussi Euh, le président de la république Macky Sall sant ci le ministre Mansour Faye mais aussi sant ci sama frère sama xarit le directeur général du fonds d'entier routier autonome monsieur du Faye nga xam ne mooy en même temps maire de Ourour euh, loolu yaakaar naa yàlla mun ci def sutura liggéeyu euh, ndaw yi aussi am nañ ci am projet boo xam ne bu ñu yitteel bu ñu ñor mooy benn ferme laitière bu ñu war a def kuuree ci booru Kombelaan boobu aussi ñu ak partenaires yi ñu ngi ci uh-huh. ñu ngi ci bu baax a baax a baax te ñu ngi avancer ñu ngi avancé euh, bëgg nañu aussi vraiment mbirum ndox mi aussi euh, ñu fexe forage yi yokku parce que vraiment ndox mi manqué na trop euh, bi ci gën a urgent tey mooy ñu fexe forage réewment bi tàkk je pense que defoon nañu adduction yeeg yëpp léegi matériel de pompage bi moo ci des ñu monté ko pour mën a mettre en service forage boobu en attendant mu soulager mu soulager nit ñi mais terewul vraiment pour ñu bañatee daanu ci ci yu demee noonu uh-huh. très rapidement vraiment ñu fexe doolu yeneen forage comme nit ñi àdduna day dox uh-huh. ñu ñu jéem a li tubaab di wax anticiper ñu def anticipation pour dolli forage yi mais aussi vraiment jigéen ñi ak ndaw ñi aussi xalaat nañ ne nañ leen beral loxo ci ci mandat bi pour gunge leen gunge leen ci seen liggéey gunge leen aussi ci seen épanouissement muy sur le plan culturel wala ci sport bi euh, ku xam Refane xam ne dëkku sport la mu ngi ci làmb ji. Uh-huh. ak seen champion. waaw ak suñu champion Tapha Tine. koy nuyu bu baax au passage di nuyu aussi ñoom ñoom wuli wuliwaat ñoom mbëri yëpp ñoom uh-huh. gars yëpp. dañuy teewal dëkk Réfane. voilà ñu ngi ñu ngi yëkkati drapeau Réfane bu baax a baax ci làmb ji mais aussi football bi bu ko fàttee. Euh, zone bi fa nekk ak yooyu ñooñu aussi vraiment bëgg nañu daal sport bi de manière globale. lan mooy sa projet ci euh, sport bi laata ñuy ñëwaat ci yeneen yi xuus parce que dañuy ne euh, tey sport bi dañ ko jël teg ko au second plan te gis nañ njëriñ bi nga xam ne tey sport indi na ko ak Sénégal mi demoon outil ak tey Coupe d'Afrique bi yaakaar naa ni mën na indi benn déclic. waaye sport bi mooy en bu la yàlla dogalee nga am ay talent. peut li ci des mooy accompagnement jéem accompagner talan yooyu. ndax maire bi mu ngi accompagner zone bi. waaw non bi quand même ñu ngi leen di accompagner parce que ñun moom euh, suñu suñu kii mooy boobu zone moom bu bu nawetaan commencé rek équipe bu bokk rek équipe bu participer rek déjà euh, jot nga sa équipement. subvention subvention dañuy subventionné zone bi aussi. mais boo affilié zone rek déjà comme comme nar bokk ci compétition bi rek. Mhm. déjà loolu mairie bi war na ko ak yow dañ la koy dañ la koy jox sa maillot sa ballon sa ak sa subvention. Mhm. Euh, euh, maintenant xëy na li ci des mooy parce que actuellement dans toute la commune de Réfane benn terrain moo fa am clôturé peut-être il faut xëy na yeneen zone yi yeneen dëkk yi nga xam ne dañu xaw a sori Réfane. Mhm. ci mel ni réew ma ak Ndar dans un premier temps vraiment ñu fexe ñoom aussi ñu defal leen ay terrain yoo xam ne bien clôturé bien protégé. ñoom aussi ñu mën fa di fa def seeni entraînement dina mën a permettre euh, euh, talent yi éclore uh-huh. parce que talent boo ko exercé wul aussi du mën na mën nga ko inhiber dans ce cas dootul dootul dootul jëriñ dara uh-huh. euh, accompagner leen vraiment parce que amoon nañ sax idée mettre en place une équipe de football une équipe de football communal boo xam ne dañuy fexe mu bokk maintenant désormais ci ci architecture footballistique bu Sénégal ci waaw mais ñu commencé d'abord par division régionale uh-huh. jama xool lu ñuy def ba ba avancer parce que tamit euh, division régionale loolu aussi je pense que il faut que nit ñi de plus en ñu kii ci je pense que dans chaque région uh-huh. mën na de sorte que chaque commune fexe am une une équipe de chaque commune am une équipe de division régionale de fait Euh, compétition bi au niveau régional. mu dox ay talent feeñ dem au niveau national euh, daal di euh, fournir ay ay ay ay ay joueurs ay ay athlètes. au niveau des de nos différentes équipes nationales donc que ça soit ci football bi wala ci yeneen discipline sportive yi je pense que de plus en plus à la base au niveau des communes ñuy def dara loo xam ne au niveau départemental peut-être avec le service départemental en collaboration avec les différentes communes ñu jëm ko agrégé loolu aussi au niveau régional ñu jëm ko agrégé de de ce fait dinañu mën di approvisionner toutes nos équipes nationales en en Sénégal nekk au di euh, du sport africain. monsieur le maire tam dañuy jël football bi rek teg ko yaakaar ni football rek. waaw foofu laa bëggoon jëm si sax. parce que euh, Refane comme ni ma wax sànq làmb ji moom kenn mënu ko fa génnee. <laughs> Euh, bëgg naa aussi en rapport avec acteurs yi nekk ci ci làmb ji. ñu xool lu ñuy def ba dégager leen ay subvention parce que bu fekkee mbër buy bëri rek woo maire ñu xool la mu am jàppale leen waaw c'est c'est pas très organisé c'est pas très organisé euh, maa ngi nuyu au passage Cheikh Diouf ak Grand Badadion en tout cas dinaa gën a diisoo ak ñoom maintenant lii souvent ce qui nous pose problème c'est que il faut que ñoom aussi ñu ñu ñu am ay association xam ne de lutteurs seen écurie yi ñu koy domicilier au niveau de la commune ah. c'est vrai que écurie yi yëpp li nga xam ne waa Refane la mais généralement dañ koy domicilier à Dakar donc loolu. mooy fausse juridiquement voilà juridiquement pour nga euh, nga nekk nga dégager euh, une subvention de la mairie de Réfane pour une association domiciliée à Dakar kooku juridique moo mënul. comme contradictoire mënul nekk sax bu boobaa parce que commune bi compétence am ci commune bi la yem donc dinañ fexe peut-être à côté seen reconnaissance yi am Dakar ñu fexe ñu am ay reconnaissance au niveau communal nga xam ne si seront reconnus par le gouverneur de Diourbel nga xam ne là avec domiciliation à nga xam ne vraiment nañ mën a am latitude dans les dans les budgets de la commune ñu leen mën di parce que fi mu nekk mbër bu ci bëree woow monsieur le maire monsieur le maire la mu yer ci poosam rek lay yëkkati jox la parce que amul possibilité ci biir budget commune bi mu jël mu jël fa subvention jox leen ko donc li mu am ci poche am rek la yëkkati jox la voilà et finalement même pour maire day day xaw a métti sax <laughs> waaw waaw ñu bëri moom dañuy solliciter li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu mais monsieur le maire wàllum cadre de vie mhm. cadre de vie lu am solo la ci dëkk mhm. euh, foofu itam su mu nga fa wala am nga fa ay chantier yi nga xam ni war nga ko mën a jagleel euh, commune ba waaw cadre de vie bi dañu bëgg mu lépp set ensuite peut-être ñu jëm vers des reboisements ak yu demee noonu mais d'abord set bi déjà loolu moom euh, je pense que dinañ ci am ay solution yoo xam ne du yàgg parce que le fonds ci routier autonome bi ñu nu financé tali bi te ñu nu finance permettre en même temps ñu recruter cinq jeunes yoo xam ne dinañu commencé liggéey bu yàgg. ci commune bi lañuy génne. waaw ñëpp ci commune ay jeunes yu ndaw commune bi lay doon du ñu jéggi kenn feneen donc quarante cinq yoo xam ne dinañu mën di toppatoo désormais tëli bi ak li ko wër pour que dara du ci taq vraiment ñu koy nettoyer maintenant peut-être dina en en collaboration avec la euh, kii ñu xool aussi lu ñuy étendre nu ñuy gën a yaatale liggéey boobu ba nga xam ne tout ce qui mbalit ak yooyu en lépp luy jëmmal yu jox ko propreté ak yooyu ñu xool nu ñu def ba ba mu gën a mucc ayib eh, sànq dégg nañ la nga doon wax ci wàllum infrastructure tam loolu bokk na ci seen mbëbët naam yéen commune amu leen compétence yi bu baax mais état central war leen mën a jàppale ci loolu tey ci wàllum infrastructure ci biir commune bi ndax am na amélioration ginnaaw ba péage bi doxee seen digg ak li nga xam ni moom moo jëm ci dëkk Dakar foofu. waaw en fait pour ñu quand on parle de péage di péage moom foofu quand de sérieux problèmes. ba tey waaw ba tey c'est vrai que defaral nañu benn passerelle déjà mais il faut ñu dolli ñu yeneen passerelle parce que ba léegi am na ñoo xam ne pour ñu jéggi jafe na. pour ñu jéggi jafe na trop donc vraiment kooku ñoom ci waxtaan nag di ci liggéey ak euh, service yi nekk ministère des infrastructures et transport terrestre du désenclavement notamment service AGEROUTE yi ah, ah. te ñu ngi ciy am yaakaar en tout cas dig nañu nu te lu ñu man pour que euh, loolu sotti bu soobee yàlla dinañ ko def ah, maintenant infrastructure yi toujours foo aussi ñu dolliwaat parce que c'est vrai vraiment tëli loo xam ne ñu ngi koy ñaan depuis ñeent fukki at yàlla di ko soog a que ba léegi dafa am ci dëkk yoo xam ne parce que Refane dafa bëri suuf commune bi dafa yoon yi dafa bëri suuf il faut vraiment ñu fexe fépp foo xam ne rek dëkk mu nga fa en tout cas surtout yenn dëkk yu mag yi te yenn oto yi di fa war di dem surtout oto yu mag yi ñu fexe dans un premier temps bu dee latérite sax ñu fexe mu dem fa en attendant nuy xool nu mu def nu ñu def ba goudronné ko mais ci wàllum koom amoon am na njeexintal wala léegi tane na euh, wala ba tey mi ngi fa. Ah, mu ngi mu ngi ko waaw kooku nañu ko vraiment sant yàlla bu baax mais aussi jaajëfal ci askanu Refane am na temps nit ñi dañu gëmoon ne pour nga liggéey rek il faut nga génn Refane ñëw Dakar hmm. mais léegi ñu ngi assister phénomène retour da nga gis ñu doon liggéey Dakar jékki-jékki def Refane mais di fa def ak di fa am loo xam ne mu mënuñu ko am Dakar parce que nga xam dëkk bu mag nga xam ne nag vraiment ñi lañuy li ñuy soxla bu ñu koy jënd biir Refane rek doy na pour indi Refane benn secteur économique bu dynamique commerce bi macha allah transport bi Euh, euh, vente de matériaux bi uh-huh. ah et de plus en aussi nit ñi di xaw di dem ci mbirum mbayum mbayum mbayum dër uh-huh. ah, yooyu aussi mooy fa ak élevage bi ñii di yar xar ñii di yar nag vraiment ak ñu am chance wu nekk diggante ñaari marché yoo xam ne marché à bétail yu dox la muy marché Bambey ak marché uh-huh. marché Toubatoul yooyu yëpp vraiment ay ay ay ay opportunité yoo xam ne vraiment askanu Refane ñu ngi koy exploité di ci di ci def ay liggéey yu am solo. Uh-huh. Euh, fii mu toll moom euh, économiquement. Porokhane est très dynamique. Uh-huh. ñu sant yàlla waaw ñu sant yàlla mais aussi loolu dafa am lëkku leneen lu ko gën a mën a yombal. mooy waa Refane dañu gëm Refane. c'est-à-dire ay tuxu yi ay non non non ñoom kenn ku nekk loo am rek yàkkamte ngaa daw yóbbu ko refaat donc de cette de sorte que bu ñëpp kenn ku nekk di dawee di indi li mu am uh-huh. donte dërëm nga am buñ kenn ku nekk indee dërëm day bëgg a nekk dërëm yu bari uh-huh. et loolu nekk xaalis finance yoo xam ne nekk ci biir refaan di tourner ci économie bi uh-huh. donc ñu sant yàlla bu baax gën a jaajëfal aussi waa refaan ak ndawi refaan ak jigéen ñi ak mag ñi ci vraiment seen pas-pas parce que loolu li ñuy wax le travail libère l'homme maanaam liggéey mooy goreel doomu aadama loolu waaree fan dañ ko teel a comprendre ci loolu lañ nekk mhm. moo tax euh, seen gore yomb mais est-ce que euh, ci noonu monsieur le maire kon yow am na projet bi nga xam ni yow moom nga leen di tàllalee loxo ngir ñu ñëw accompagner dynamique boobu waaw projet bi mooy bi mu wax sànq rek projet projet kii usine laitière bi. parce que dañu ne. mel ni yitteel na ma na ma trop. te di loo xam ne daa mën a wër reefan daf ko mën a daj parce que à côté de de mën nañu dëkk bu nekk ñu créer fa benn ferme boo xam ne. meew ma ak la fay jóge dañ ko yóbbu ci usine bi mu ko mun di ko transformer en différents produits laitiers euh, projet boobu bu yàlla defee mu sotti yaakaar naa Refane fa lay jaare euh, développé carrément développé carrément te vraiment ñu ngi ci am yaakaar en tout cas ci lay wooy waa Refane yëpp tàllal leen loxo yëpp tout le kenn ku nekk loo man pour projet boobu sotti loo mën a ñaan pour mu sotti loo mën a def ci zaahir ak ci baatin pour mu sotti maa ngi la ciy tàllal loxo parce que njëriñ lu rëy pour Refane pour département de Bambey mais aussi pour Sénégal tàllal euh, loxo bi ak diaspora bi commune euh, bu Refane naka lay euh, liggéeyee ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di diaspora bi itam loolu wàllum projet ak li nga xam ni nag moom moo jëm ci wàllum coopération euh, yegg léeg-léeg itam day suqali gox. waaw diaspora bi ma nuyu leen au passage nuyu leen ñoom yëpp euh, vraiment ñoom ñu ngi ñu ngi leen liggéey ñu ngi liggéey ak ñoom di leen yaakaar aussi di leen gën a yaakaar euh, rawatina nag ci mbirum santé. déjà ma félicité leen euh, ñu nekk Italie récemment rek avec l'appui de Mohamed Ali Ndiaye le champion uh-huh. yónnee nañu poste de santé bu Réfane benn ambulance yaakaar naa romb nga ko ci bunt bi uh-huh. mooy bi nga romb ci bunt bi waaw vraiment ma félicité leen ci mais aussi mu ngi def liggéey bu am solo ci santé bi ci Assad ASAD benn association la boo xam ne nañu leen nangul ne xalaat bi ci ñoom la jógee ñoom waa ñoom ñoom diaspora bi ba waa Refane ñu dajee vraiment créer benn association boo xam ne daaw Daouda Daouda Diouf moo ko jiitee ñuy liggéey maintenant pour xool lu ñuy def ba tabax benn hôpital Refane vraiment diaspora bi macha allah. donc fan lañ toll ci loolu. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci je pense que paparaat bu bëri dépassé nañu ko gaa yi ngi cotiser aussi ministre de de de la santé aussi engagé woon na pour am lu mu mënu ci jàppale dans le cadre du du budget consolidé d'investissement. Uh-huh. yooyu ñu ngi koy xaar euh, en tout cas engagé woon nañu maintenant euh, au la de la santé aussi ñu gën leen tàllal loxo aussi ñoom ñu gën a dugal seen loxo ci yeneen secteur secteurs uh-huh. yi yu demee ni éducation yu demee ni aussi accompagner femmes yi ak jeunes yi ci création d'emploi euh, parce que aussi dama koy wax souvent boo dee moodu moodu nekk dans la diaspora uh-huh. euh, bu la yàlla baaxee nga defar yenn yi man je pense que jël benn trent benn quarante wala benn cinquante millions aussi dem créer ci dara dëkk ba uh-huh. ay ndaw di ca dugg di ca ci jëm seen teranga loolu aussi lu baax la ci dëkk donc maa ngi ñaax yu demee noonu s'il le faut sax ñu def ay groupe mouvement yow yaa ngi dix millions kale ngeeg vingt millions kale ngeeg quatorze millions uh-huh. ñu benn affaire bu ndaw bu bu boo xam ne bu ñu ko defee refaat mu mën a amal njariñ non seulement ñoom uh-huh. ña ko investir mais ndaw yooyu xëy di ca dugg di ca liggéey di ca di ca daan seen doole est-ce que yaa ngi yaa ngi siy waxtaan ak ñoom wala euh, leen projet bi nga xam ni yor nga ko ci biir commune bi waaw maa ngi ciy waxtaan ak ñenn mais je pense que comme nu ma ko defee woon en 2014 2015 euh, je pense parce que bu jamono yiy jàllee si dafa xaw xat dinaa dinaa tukki bëgg na maa dem Paris euh, mais bëgg na maa dem surtout Italie parce que l'essentiel bon ñi ëpp quand même ci ah, diaspora Refane uh-huh. ils sont au niveau de l'Italie peut-être am na ñu nekk euh, Espagne en tout cas fu ma ci fu ma ci sama kii may rek dinaa dem waaw sama agenda may dinaa dem ba si ñoom saafo wante waat ak ñoom gën leen ñaax euh, gën leen nemmeeku aussi parce que même au delà de investissement yi ñu war a def ak yooyu ci njaboot gi lañu bokk. dañuy am tamit devoir yenn saa yi dem ba ci ñoom. Euh, nemmeeku leen jaajëfal leen gën leen encouragé seen xel gën a dal. Uh-huh. bu soobee loolu moom dinañ ko def euh, dinañ ko def xam naa après dañuy bàyyi ba màggalu reefaan bi jàll rek. Uh-huh. comme daanaka koor yi ñëw na te dañuy après dañuy dëgmal màggal gi. bu soobee yàlla dinañ dem ba ci ñoom. Uh-huh. même Espagne c'est pas exclu. Euh, en tout cas fu ñu ci mën a kii rek bu soobee nañ dem ba ci ñoom saafanteeg ñoom gën a xeetu wéccanteeg ñoom xalaat aussi gën leen a ñaax ci yenn projet yi. wax nañ itam wàllum projet femme suqaliku jigéen ñi junj nga ko sànq da nga ko xaw a boros tuuti rek lan nga fas yéene defal jigéen ñi ñoom itam euh, léeg-léeg ci biir commune yi dañ fay jouer ay rôle yu am solo surtout seen euh, mouvement GIE yi ñu am dañuy soxla accompagnement. waaw en fait déjà ñu leen di accompagner bu baax a baax je pense que am na nous des partenaires yoo xam ne ñu ngi leen di financer et je pense que li fa partenaires financé je pense que léegi mu jege cent millions biir commune bi ci commune bi mais euh, loolu bon c'est vrai naa jaajëfal partenaires yi mais surtout jigéen ñi laa ciy jaajëfal. parce que partenaire bu joxe woon xaalisam fayuñu ko du ñëwaat mais ci car macha allah jigéenu Réfane mooy ñoo xam ne boo leen lebalee tëddal nelaw. dañ la fay dañ la fay. te ñu nga ciy liggéey ndax xëy na li ñu bëgg rek mooy gën leen a accompagner xëy na gën a aussi xool ay partenaires yoo xam ne parce que plus taux d'intérêt bi gën a wàcc plus ñoom ñu gën ci gis seen bopp mm-hmm. mais aussi ñaax leen euh, déjà dinañu am na ñoo xam ne defal nañ leen ay formation mais dinañu dolli ci transformation yooyu xam ne dinañ permettre ñu transformer les céréales locales transformer peut-être euh, ay ay jus defar affaire yooyu yoo xam ne defar ay saabu defar ay eau de javel am na ñoo xam ne ñoo ngi ci déjà ma nuyu waa Ndorong Malick au passage euh, ñoom ñu ngi def liggéey bu am solo am na ay femmes yu nekk Réfane aussi transformation céréale bi moom avancé nañ ci trop avancé nañ ñoom léegi ñu si dañuy liggéey ñëw di ko jaay si fii. effectivement ñu ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax même au di côté de Ndaref am na ñu koy def donc de plus en plus gars yi ñu ngi ci am na ñoo xam ne euh, l' agent ANCAR bi nekk Réfane Issa Kébé maa ngi koy nuyu au aussi defaloon na ne ay formation bi ma waxtaan ak moom matul 15 jours pour ñu xool aussi nan la ñuy amaat yenn partenaire pour ñu yokk formation yi. Ah. parce que financement bi baax na mais accompagné na aussi par des formations nga xam ne pour financement bi dinañ xam nu ñu koy defee. dinañ xam liñ ciy liggéey seen liggéey dina gën a mën a jàppandi. je pense que loolu aussi lu am solo loolu am na solo euh, fàttali ni tey ki nga xam ne moom moo di docteur Djibril Thiaw moom la ñuy dalal ci émission gox bi nekk maire commune bu Réfane euh, xaaral ma laal la tuuti njiitu réew mi dafa mel ni moom commencé waat na oto yi dem di nemmeekuwaat nit ñi de euh, tournée yi ñu bari nee nañ politique la. man <laughs> njiitu réew mi. dafa war a dem ci nit ñi parce que nit ñi ñoo ko fal nit ñi la fi nekkal borom njaboot bu sol dàllam ne maa ngi seeti sama njaboot man je pense qu'il y a rien plus normal rien de plus naturel fiw ne bu toogoon ci buroom bi un an demul ci kenn ñu ne président yëgul nit ñi bu solee dàllam di dem ñu ne day politique mais bien sûr politique kay c'est la gestion de la cité kon politique bu baax lay def. mais dañ ne tukki yi nga xam ne mu ngi koy def dëru diwaan yi mu demoon demoon na fa demaat fa waaye évaluation dafa mel ni amu ci. ah kay ñoom ñoo xam ci ñiy wax loolu ñoo xamul évaluation am na wala amul mais état du def lu mu évalué wul ku toll ni président de la république lu mu def évalué na ko maintenant évaluation aussi du loolu loo xam ne da ngay ba nga daan dem rajo yeeg télé yi topp la booy évaluer rajo yeeg télé duñ la mais président de la république l'état Sénégal lépp lu ñu def bu ñu paree dañ koy évaluer tirer conclusions tirer des leçons te leçons yi ak conclusions yi day impacter seen seen seen action yi teg dans le futur le président évalue très bien ce qu'il fait le gouvernement évalue très bien ce qu'il fait ku dul évaluer doo avancer cest dire loolu ban quelquefois bi ku koy wax loolu ça dire que yow xamoo dara dara ci comment marche un état parce que boo defee dara évaluer woo kon nooy defee waat leneen il nga évaluer bu nga xam li ngay defaat di nga xam fi ngay teg sa tànk. ñu ne élection législative yi dafa nekk di remobiliser waat li nga xam ne moom moo jëm ci troupe yi Kaolack ak Kaffrine ak ainsi de suite Kaolack gañe woo leen ko élection bi dafay dem ñaw affaire yi. Oh. <laughs> mbir yi daal doo doo comprendre Sénégal yenn yenn ci Sénégalais li ñuy li ñuy mais kam Kaolack euh, lu tax kon ñu ne lu tax defu ko Dakar Dakar gañewuñu ko. mais dafa xam ne Kaolack xëy na jot na mu dem fa par rapport ak yenn information yoo xam ne soxla gën na ko soxla par rapport ak xëy na loo xam ne moom ak fi mu toll ci niveau d'information xam na ko te ñun xamuñu ko mu sentir ne Kaolack soxla nañu visite président de la république Tamba soxla nañu visite président de la république euh, ma jaare fa dem saaf Kaffrine soxla nañu ko ma jaare fa dem saafante encore ak njabootu Sénégal beneen muy waa Daaka ba man ah, je pense que c'est extrêmement bien réfléchi nañu bàyyi président de la république mu dem ci njabootam nemmeekonte ak ñoom saafante ak ñoom président de la république dafa war a dem ci njabootam moom rek la fa war ci Sénégal d'ailleurs man su ma neexee bon bu bu reefaat am nañu obli am naa obligation dem fa mais feneen fu dul refaat su ma toogee dix ans dem ma fa sax kenn du wax dara su ma fa demee ñu ne ah waa ji baax na. mais gën ko dégg Jurbel de. nañ ko dégg Jurbel de. mais chaque màggal ñu dégg ko Jurbel wala avant màggal wala yeneen cérémonie. mu ñëw Bambey. ah waaw c'est vrai que soxla nañu ko Bambey d'ailleurs président de la République ñu lay xaar Bambey voilà <laughs> waaw ñëwal Bambey mais vraiment Bambey feneen feneen parce que tamit comme ni ma la léegi quelquefois day toll ci niveau boo xam ne xëy na sentir na ne euh, telle région. fi ma toll nii moo gën a soxla sama présence que telle autre région mais li biir mooy li ma koy faral di wax rek xool bi njaboot borom njaboot di am si njabootam bu sañoon di leen gis toujours dara du leen naqari lu ñu soxla mu def ko même xool boobu la président de la république ak bu mu mën di doona ah, muy bu Sénégal muy bu Mali muy bu kongo muy bu France président de la république bu nekk boo sañoon sa njaboot suñ la ak gis la si dara du leen metti lu ñu soxla nga faj ko loolu c'est tout à fait normal c'est naturel lépp mën da bone noonu bu ñu xasee ba fal le président de la république lu ne ci lu baax yéene nga ko askan woowu loo tax quelquefois doo doo comprendre ñu ñi ni ñuy fonctionner. léegi li nga xam ni moom moo jëm ci élection nekkul di euh, xool natt boppam élection législative yi naka la koy waajalee. non élection législative du moom ñun la. ah ñun ñooy kii. waaw ah, mais même même bu fekkee ni yéen la rek waaye moom loxo man ci ginnaaw. ah waaw c'est normal mooy bon jàppale njaboot gi tuuti rek mais bon je que président élection législative terewul na terewul nelaw président de la république parce que bu fekkee ni. Euh, majorité rek la soxla à l'Assemblée nationale cette majorité là incha allah nous l'aurons nous l'aurons bu soobee yàlla nous aurons une majorité confortable à l'Assemblée nationale bu soobee yàlla bu soobee yàlla bu soobee yàlla donc vraiment jàpp ma ne ci ci préparer campagne la nekk non dama jàpp ne rek dafa gis ne région yi mu war yëpp Sénégal yëpp ko soxla mais celle-là plus que soxla nañu présence am te bu ca jógee aussi gëm naa ne dina def yeneen région incha allah for naa ci réew béykat yi da nga am ambition pour jiite liste bu Benno Bokk Yaakaar bu département bu Bambey mën a dem ci jogante législative yi sa yéene la sama yéene la lu wér nga wax euh, d'ailleurs euh, bon maa ngi koy préparé euh, mu yéene boo xam ne aussi fi ma ko teg rek nekkul fenn fudul am pas-pas ak yéene saytul waa département Bambey seen baat ca pencum ndaw réew saytul leen ko euh, ci kanamu gouvernement du Sénégal saytul leen ko ci kanamu président de la République parce que nag euh, président de la République mu ngi def liggéey bu mucc ayib ci Sénégal ku mu neex ak ku mu naqari ku bëgg président ak ku bañ président président de la République mu ngi def liggéey bu mucc ayib mais gox yi ni ni ñuy amee ni ñuy jote ci liggéey boobu mu ngi dépendre ci ñi leen taxawoon ñi leen teewal ñi yor seen kàddu ko Bambey jàpp naa ne lu ne mën nañu ko am ci président la république mais tant que amul ñoo xam ne seen taxawaay ak seen kàddu ak seen pas-pas ci département de Bambey jaral na leen ñu fàtte seen bopp li ñu war a jot ci président de la république duñ ko jot donc suñu pas-pas ak suñu yéene mooy ñu taxaw lan moo tax mu bloqué li tax mu bloqué mooy li ma wax sànq xëy na ñanu yaakaaroon ci département de Bambey ne war nañ mën a dox suñu diggante ak président de la république war nañ mën a dox suñu diggante ak gouvernement du Sénégal ñun askanu Bambey ñu nuy ñu nuy waxal suñuy seeni soxla suñuy soxla ñun askanu Bambey ñu nuy lijjantiil li nga xam ne moom la ñuy yittewoo ca Bambey ñu nuy ko indil ñooñu dama jàpp ne seen taxawaay moo des donc dañuy am nag euh, devoir obligation jóg tàllal waa Bambey yépp loxo ak parti bu mën di bokk pour fas yéene teewal leen ca euh, pencum ndaw réew ma donc suñu ambition uh-huh. c'est vrai mooy nekk tête de liste départementale bu benn bokk yaakaar ci département de Bambey ci élection législative yi ñu jëm bu soobee yàlla. su la déggee ngay wax dafa mel ni ñi jege njiitu réew mi war a liggéeyal Bambey xel yu bari dafay dem ci Mor Ngom da nga jàpp ni la waroon def la mu waroon def ci département bi def ko. Euh, bu fekkee moo teewal Bambey ci wetu président la république bu fekkee moo yor kàddu Bambey la mu war a def defu ko bu fekkee loolu la. en tout cas ñi nga xam ne ñoom ñooy ba moom la ba Bambey yaakaaroon pour ñu teewal leen fi wetu président de la république teewal leen ci askan ci ci ci péncum ndaw réew yi teewal leen nekk seen interface diggante askanu Bambey ak gouvernement du Sénégal ñooñu jàpp naa ne defuñu seen liggéey jàpp naa ne li leen Bambey doon xaare defuñu ko loolu laa jàpp. lu bari dañ ne da nga am contentieux ak Mor lan mooy problème bi. Mor Ngom amuñu benn problème euh, man bokk awma problème ak moom mais euh, bu ñu waxalee aussi ci li am mooy ñeenti at yii. Euh, xeex bu mu mën a xeex xeex na ko. moom Mor Ngom moom Mor Ngom kooku je le lui ai dit wax nañu téléphone man ak moom donc li may wax ni du jëw xëy na mu ngi may dégg Euh, jib coow dama koy écraser jib coow dootul tekki dara ci APR jib coow dootul romb mairie mbaag jib coow du mës nekk suñu candidat euh, ci élection yooyu yëpp en plus président la république tànn ma pour ma nekkoon tête de liste conseil départemental mu dindi ko def fa ka ko neex donc ci élection yi yi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen jéem na dugg reefan jéem ma jaxaseek waa reefan waa reefan lànk doomooma mooy xamul reefan bu xamul reefan dafa jéem a dugg di ma jéem a yàqal waa reefan lànk jàkkaarloog moom doomooma parce que maay seen doom en fait donc nit ki nag bu commencé di la def yooyu man jombale naa sama bopp di jóg di xeex nit walla may koy wutal lu ñaaw dama koy bàyyeek la muy jéem parce que daf may biir ne suñu borom du ko sottal suñu borom ay lànk te man ma dox ci jàmm dox ci salaam yéene nit ñi jàmm wuutale nit ñi jàmm da nga jàpp ni Mor Ngom est le problème de l'APR au niveau du département de Bambey. waaw man jàpp naa ne il n'est plus le problème de l'APR parce que jàpp naa ne il ne dirige plus l'APR au niveau du département ba ma ba ma koy diriger dama jàpp ne moom moo nekkoon le problème mais man personnellement jàppatu ne moo diriger APR jàppatu ma ne voilà politiquement plus rien ne nous lie donc damay dox suma dox. te sama information bi nga xam ne itam am naa ko. ñu ne sax léegi yow yaay coordinateur département bu Bambey bu Benno Bokk Yaakaar wala sax APR. waaw bu APR Alliance pour la République département de Bambey jàpp naa ne may coordonnateur départemental bi. man ak ñi ma ko nangul. kan moo la ko jox njiitu réew ma la ko jox wala euh, askan wi politique yi APR ñoom ñoo dajale jox la ko. APR Bambey ñoo dajale jox ma ko pour une écrasante majorité APR Bambey ñoo dajeel pour ci ñu bëri ci ñoom ñoom ñoo ñoom mën dañoo woo ma téléphone dama doy nga nu ci te dinaa leen ko nangul dinaa leen ko nangul donc fii ma toll nii di wax ak yow jàpp naa ne coordonnateur départemental bu alliance pour la république Bambey jàpp naa ne man la ak kul ma ko nangul politique nag moom du armée du administration koo ci yile def ko neex ku mu neex nga ne yëlifoo ma moo ko koy ma nangul ko ko aussi koo yilif ci politique rek daf ko neex. donc tey ma yilif la moo amul ci politique. gis nañ gis nañ Aïda Mbodj dina def benn clin d'œil ci li nga xam ni moo jëm ci euh, députation yi euh, dafa mel ni kon position bi nga am moom lay dëggal. Euh, waaw Aïda xam na ne département de Bambey APR bu doon société man maay actionnaire majoritaire bi. waa Bambey xam nañu loolu euh, maintenant clin d'œil bon je ne pense pas que Aïda Mbodj di ma def clin d'œil parce que bokkuñu parti donte on a de très bons rapports euh, jàmm lañu seet mais moom mu ngi ak son parti man je un militant de l'Alliance pour la République je un militant du président de la République Macky Sall man vision Macky Sall laa gëm ci laa nekk ci laay dox mais nag pour repréciser encore jamono yi may wax ak yow. amatuma kilifa ci biir APR ku du président Macky moo ci sama seul référence kepp donc. kon seen euh, ñàkk bu ma ko mënee wax noonu ñàkk jiboo bi est-ce que mënul leen indil gàllankoor ci élection législative yi ñu jëm. Euh, non ñàkk juboo du am l'essentiel mooy président de la république bu ñuy def investir na déglu base bi rek bu déglu waa Bambey bu déglu waa Benno Bokk Yaakaar Bambey la ko wax mu def ko on va gagner haut la mais maintenant léegi nag peut-être nañu reconnaître aussi que militants yi jébalootuñu ci kenn <laughs> non militants yi jébalootuñu ci kenn maanaam lu mooy loo def baax na déedéet yenn saa yi damay nit mu ne ma ah monsieur le maire ñun de yow la ñu àndal waaye nangam ak nangam lii du ñu ko nangu ça veut dire kooku wax na ma boppam su nangam ak nangam loolu su ma ko defee mu ne ma fa yukk lu yàq mu naqari dem defee la mu xam wala ah monsieur maire ñun day benn bokk yaakaar nañu bokk waaye élection yi ñuy dëgmal day bu ngeen jiitalee diw wala bu ngeen defee nangam loolu duñu ci ànd maanaam jébalootuñ ci kenn dangay ngay def lu dal seen xel ñu ànd ci ak yow boo defee leneen boo muy tuur rek ñoom tamit ñu def leneen. wala da ngeen di bañ coalition Yewwi Askan Wi nga xam ni tey ñu bari jàpp nañu léegi réalité la. ngir mu bañ a def surprise ci ñoom sax nee nañ cohabitation lañ bëgg ci élection législative yi. non dañuy nax seen bopp waaye cohabitation ñoom dañuy <laughs> yeewi nañu toog en fait c'est vrai que nag c'est une réalité politique yeewi askan wi c'est une réalité politique qui est là faut pas fermer les yeux pas se se la face euh, mais mënuñu lu yëngal mënuñu lu indil cohabitation bu fekkee ni doxee na ni ñu war a doxee. nous aurons une majorité écrasante à l'Assemblée nationale te gëm naa ne président de la République par rapport ak élection locale yi passé va tirer dina def jàngat tirer toutes les conséquences xool les bons profils dans chaque département mu jiital leen parce que tey il serait en tout cas du ñu ko mën a expliquer ñu ne par exemple au niveau du département de Bambey bi ñu defee élection ba pare APR benn maire rek ci am 56 pour cent Djib Thiaw benn maire rek moo ci dépassé mille voix Djib Thiaw ñu ne maire sàngam 26 pour cent la gagné ak 2300 voix ñu jël maire sàngam boobu jiital ko bàyyi Djib Thiaw loolu bu boobaa aussi. Euh, on a frustré. ah oui c'est évident c'est évident c'est évident parce que bu boobaa même yow jib kew boo ko nangoo 3000 4000 personnes yàlla voté loon bu boobaa dinañ ne yow nga leen yàpp parce que ñoom euh, ni ñu toll élire la à 56 pour cent ngay nangu borom 1000 voix jiite la borom 26 pour cent jiite la borom 30 pour cent jiite la bu boobaa dañ danaa yow demoo fenn dañuy tardé loolu aussi population yi ñu ngi toog ñu ngi xool. duñ ko nangu ils vont pas ils vont même moi je ne vais pas l'accepter. ok ci jamono jooju ñiy xaar tabbu premier ministre euh, boo xam ne procédure d'urgence la ñu waxoon léegi sax yaakaar naa ne fii amatul urgence léegi euh, ñu ngi fi ay quelques mois la ñu wax ba léegi affaire mbir mi taxaw ndax am euh, daa am calcul politique bu Macky Sall di xaar. non euh, amul bon je ne sais pas mais nañu nañu nañu delloo mbir mi ci ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari fee benn président Macky Sall moo am pouvoir discrétionnaire u nommé premier ministre nommé ko comme mu bëgg nommé ko bés ba mu bëgg ay mbirama moom moo ko soxla wala mu bañ ko soxla beneen mbir na nga xam ne état ak tabb lu toll ni Sénégal lu toll nim réew. plus de 17 millions de personnes nga war ci tànn ñi jiite du lu yomb te muy tànn boo xam ne boo xesee ba def ko daanaka rek dañuy wóor ne fekk at dootoo ko laal kon nañu ko bàyyi mu jël le temps qu'il faut. le temps qu'il faut nañ ko bàyyi parce que tamit faire de mauvais choix mën na mën na mën na am préjudice. nañ ko bàyyi comme vraiment pouvoir discrétionnaire am la moo xam fi liggéey bi toll moo xam li mu soxla pour li ñu ko dénk muy Sénégal mu sayt ko correctement. Uh-huh. vraiment nañu ko may ak daal bañ ko teg pression. Uh-huh. saa bu sentir ne def ko jot na te diw ak diw ak diw la war a doon mais vraiment mu def ko mais ñun bu buñ ko bëggee teg pression bi na gaaw na gaaw mel ni ñun ñun lay non nañu ko bàyyi rek te wóolu ko comme noo ko xal après législative wala avant législative bu doon na koy xelal loo koy wax <laughs> <laughs> c'est compliqué. c'est compliqué. <laughs> c'est très compliqué mais bon. politique la waaw politique la information bi mu am aw ma mais. bu fekkoon ni rek man li ma am comme information ak sama xelum bopp doy na ko maanaam y a pas chose loo xam ne lu ma waroon xam te xaw ma ko loo loo xam ne parce que am na yoo xam ne boo ko waree xam te xamoo ko day day day day fausser sa analyse. Uh-huh. mais bu fekkoon xam naa li ma war a xam lépp. Uh-huh. analyse bi ma am boo ko tegoon ci xam-xamu li ma war a xam lépp. Uh-huh. kon dama koy wax mu bàyyi ba législatif yi jàll. parce que tamit bon parce que généralement c'est dans tous les pays démocratiques après chaque élection les gens pensent à des à des remaniements. à des recompositions. mais bii nee na Union africaine moo tax liggéey bi. et je suis mais na na muñaat rek trois élection yàggatul quatre mois yi na yanuwaat tuuti rek <laughs> après mu mu mu fedd son gouvernement xaw a xaw a allégé wu tuuti. Mhm. maintenant bu gisee ne aussi comme li ma la wax rek. Mhm. bu fekkee am na lu mu xam loo xam ñun xamuñu ko ki commande que mu def gouvernement avant ça. Mhm. ah noonu laa na ko def. waaw euh, monsieur le maire émission bi jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Refane ñun moom am nañ mbégte lool dalal la si émission bi encore une fois gox bi léegi euh, kàddu gu mujj gi lan la. waaw ah, kàddu gu mujj gi mooy sant la gërëm la ci dalal bi ma dalal. jërëjëf nga sama xeer ma lay sa jox aussi nga sànnil ma ko Abdou Khader ji li mais sant waa Refane gërëm leen euh, ci réélection bi ñu defal nii réaffirmer leen suñu engagement suñu pas-pas ak suñu yéene. Mm-hmm. def Refane commune bi gën a développé ci Sénégal commune bi gën a set bi gën a waa bi gën a neex mhm. mais aussi santaat gërëmaat waa département de yi waa APR Bambey yëpp waa askanu Bambey yëpp waa benn Bokk Yaakaar mhm. ñi politique ak ñi politikul yëpp kilifa yi ci nekk ci département bi région bi mhm. rawatina nag kilifa yi nekk diine yi nekk Refane ñi nekk Gaawaan sama sëriñ sa ñi nekk ci département de yëpp ñi nekk région de Diourbel yi nekk Sénégal euh, réew mi yàlla def fi jàmm def fi tawfeex ak sutura ak wér ak wérle euh, waaw santaan ñëpp voilà yàlla nañu yàlla defal tawfeex. amiin amiin barke Maam Cheikh Anta Mbacke. am na solo jërëjëf ñu sant ko bu baax moom docteur Djibril Thiaw nekk maire bu Refane amoon mbégte lool dalal ko tey ci émission bi kon mbokk jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM